soslu soos bi di footballkat bi nga xam ne fi mu toll nii daanaka bari na lu nan mën a wax ci moom Bellingham ci waa mini ci bu tooy ñanco international sama waa ji Coupe d'Afrique bi fanweeri fan séngam moo ci des maa ngi leen di bëgg di leen ziar di kontaan ci yéen ñaanal leen jàmm ak salaam abonnement yow mi door a ñëw coppate ko ndànk ndax Coupe d'Afrique beeg li ko àndal lépp lu luñ ci dugal nga man koo am beneen bi sponsor bu bees ñu bëggee ko bu baax a baax ñaari weer mook Aladji Malick TV ngeen ñaanal ko ànd boobee mu jëm kanam ak moom ñu diglu yëgle bi la waaye di jaay te jaayu la xam-xam bu sell ba koog moom te jàpp ci Seydina Ousmane mii nga xam ni daanaka kilifa la goo xam ni nekk fële ca Touba Mbacké digganteem ak Ndakaaru nag daanaka melax la koy def fii ma nga fële ca ndakaaru ci bagage yi nga xam ne andi na ko di mbir yoo xam ne ah, a tegal ci gars yi taabal ma ne ah, ah, mu ma fi mu toon ko cooytu ko bam ni cooyu mu nekk ci garab goo xam ne lépp loo xam ne jëm na ci hémorroïde ak li nga xam ne moo nekk feebaru ndoxum siti feebar ak lépp loo na ci feebar yooyee loolu lay jërul laaj mën nga koo woo téléphone bu dee Tuubaa Mbàkke la nekk wala foo man di ci ndakaaru bu ko defee dana fexe ba nga jot ci garab gi lépp lépp nag tawféex la sell na te it xam-xam ba ah, sell na ah, baneen bi mooy lépp loo xam ne jëm na ci jigéen joo xam ne ah, da ngaa taxaw wala koo xam ne da ngaa bëgg sa bunti wërsëg ubbeeku fi nga xam ne mooy bitim réew nag dem fa loole ci la gën a doone jàmbaar lu ngeen mën di bëgg te mu sell te jaar ci yoon alxuraanul karim bu ngeen jokkoo ak moom lépp tawféex baneen bi mooy ku mu mënta faj du la laal loole nag taw féex la ci ñi nga xam ni ñëpp war na noo mën a moom numéro téléphone yaa ngoogu moom mii di sëñ Ousmane moo leen di may lii di xibaar yu am solo yi ginnaaw Pape Ousmane yëg bu am solo booboo ñu dikk ci xibaar yi commencé ko ak sama waa ji ñaancoo international la may njëkkee nag mooy ñu ñaanoon ko jàmm ak salaam ak tawféex yàlla làq ko fu yàq eggul ndax gone gi mi ngi préparé coupe d' afrique di préparé match ay naseer yi te coupe d' afrique bii bu dëgg dee dëgg rek dëgg neexul moom mooy footballkat bi nga xam ni ci bile équipe di équipe nationale Sénégal ñëpp a ko cee xaar waaye nag mu tombeek euh, fii mu toll ci Al Nassr ma nga fay doxalul jom ak fulla ak fayda ak football bu leer nañ ñi boobee bu fekkentee ni xelli na ko ba ci Coupe d'Afrique ba ca Côte d'Ivoire bu àndee dogalu borom bi yàlla na ko yàlla def ko bi dana dellusiwaat euh, fii ci réew mi nga xam ne ñi ko jiite njaay lan sant maanaam Sénégal njaay njaayeen yi ma gërëm leen sant leen ci abonnement yi nga xam ne ñoom ñu sant njaay ñëpp euh, def nañ ko pare soos bi soselo moom mi nga xam ne juróom-ñetti bit sëngam marqué na ko dugal ko mu nekk loo xam ni daanaka ci koo xam ni bu footballee tey mën naa toog ñaar ba ñetti mat yoo xam ne kenn du ko coppati kon kookee day démarrer bu ma ko mënee wax ci bile équipe di bu fekkoon ne bis bu ne mi ngi football chaque jour kookee lu muy def ndax bu boobaa du toj dëkk bi attaque de feu bi nga xam ne tamit Bellingham daanaka jiite na ko tam dip militaire gone googee dip anglais infirmier bi lépp a ngi tolloo kii nga xam ne mooy Tchouaméni ci bu tooy ni ma leen ko waxee dana bokk ci entraînement pré ji ma nga fa sax fi mu toll nii ci gars yi di entraîné moo ko xamal boppam ci rajo espagnol beneen bi mooy Aliou Cissé mi nga xam ni le 17 a fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu nekk dana yëkkati aw kayit woo xam ni def na ca lu toll ci ñaar fukki footballkat ak juróom-ñaar ñi war a dem ci Coupe d'Afrique bi wala ñi nga xam ne ñoom la jàpp ni bu lépp dee tolloo dananu def première liste bu mu dem bu ko defee bu amee lu muy rëccuwaat rëccuwaat ko waaye loolee dana ko def le 17 bi moo des ci Coupe d'Afrique Sénégal RTS 1 mooy télévision bi nga xam ne bu ngeen ko bëggee seetaan en euh, fu ngeen ko mën a seetaane mu nekk loo xam ne lu am am solo la ñu nit am na programme yoo xam ne ñu ngi ko ci waajal ay émission ak xibaar yoo xam ni yu wér la ak ay gëstu yoo xam ni yu ama am solo la kon loolee dañ leen di dénk abonnement yi bu ko defee boobee Coupe d'Afrique ngeen mën koo ñamax-ñamaxi ci seen télévision bi nga xam ni sport daanaka fii ci mille réew am na ci solo bu baax a baax li muy liggéey ma gërëmaat leen sant leen abonnement yi yàlla na yàlla defal leen jàmm ak sutura ak